li nga mën ci tëngee yàlla ko tëngee xam li li nga am ci xam-xam ak kattan ak mën-mën ak pexe kaar ndax seen njëriñ la tàmm nañoo wax ne diw mu ngi wut baax ñu ne yëfam la déedéet nit ñi ñoo war a góorgóorlu wuti ko moom am na xam ne suñu soxlaa askan bi askan bi la jàppale wala responsable. Je seen sama responsable ma ñu 16 ans am jënd carte secrétaire général président tey làkk naa 50 ans ce sens de la ce sens de la responsabilité ce sens de l'honneur mais nga am le sens de la parole donnée koo ne suba nga dee bu yóbboo nga wax ay mbokkam xam ne suba dee war waaye dañuy sant yàlla ba nga xamee ni sunu maam mi daan àtt fii ci taaxu pétrole mosul wax kenn kaay ma rey kaay ma teral la rek la dëkkee ma sagal la rek la ma suturaal la rek la ma dimbali la rek la dëkkee kaay macha kuy lebu këram bu la seet seen ko suturaal ku am soxla bu mën la wax bu la seet seen ko suturaal waaye ku am lu ko jaaxal bu la seet seen nga war ko pexe sama aw jóob rek moo daan joxe pexe daalo ñu di ko yónni ba kayo damaa wax ni ñu seen maam mënoon ca bal ya ah. seeni sat ñooy ma ci soxlay gaa yi salaamaaleykum waa Jokalante damaa wax dama ko dañu seen maam mënoon ca bale seeni sët ñooy may ñooy man ci soxlay gaay yi alaaji tubaab daa ñëw pare moo leen doy dafa ànd ak daanalo kon tubaab ñëw nga pare aw jóobi jubee tam jóobi jubee jubee daay ne bëgg a yóbbu taxaw bu la làmb si sa wéy bañ a. man ngaa ñu ànd ak ñaar dangaa xam ne rek nag mënumaa noppi te wax ma loolu bu seen maam mënoon ca ban seen i sëb mooy mën si tax lay kaay. ak ñëpp jërëjëf. loolu moo tax président waa Jokkul ak waa Tëngéej maa ngi leen di dénk suñuy mbokk nañu dénkante suñu bopp nit nag bu jaaxle day seeti ay bokkam nañu dénkante suñu bopp. bu nu làmbee suñu bopp daj suñu bopp su mag ñi yeewoo du nu rus waaye bu xale yu jógee xam fu ñuy jàpp wax ji nag dama ko tënk waaye jàpp naa samay mbokk laay waxal te dégg nañu maa ngi fiy bàyyi alaaji Talla Fall ak alaaji Fodé Dia ak aadama Sène di ànd ak soxna yi ñu dem ziar ba di jéggalu waat rek nag ndax su ma sañoon am na kàddu yi war a dégg ma fekke ko waaye seede bi di toog te seede bañ na dem si yàlla si incha allahu taala maa ngi leen